abonné leen ci suñu chaîne YouTube jot saa su nekk ay xibaar yu wér te wóor mi ak ci bitim coow li coow li mooy dañu ne wax bu yegg day ñooñoo ko moom l'enquête ko di jee naan man parquet bi ma ni la ku dégg ni mu waxee xam ne fi ne teg na gët Ousmane Sonko vox populi mel ni ku naan koon aha kay te maa la mën a wax sax lañ ko nar a toppee l'observateur naan leen déet bu leen gaawtu médiation mi ngi ci yoon de ngir fas yéene na xool dëgg-dëgg nees génnee Ousmane Sonko ci guut ak nga xam ne man ngi ca roofu moom Sonko saa si tembe turbine yéene kaay ne ko kaay moom maître Doudou Ndoye kay wax na yoon bi nee na bu dee nguurug Sénégal taxaw na temm fi mu ne ngir coow li daal di am balaa Sénégal di amuk jàmm xam nan yoon wa ñuy jaar ngir mën a setal Ousmane Sonko délit corruption à la jeunesse ci boppam la ñuy jël tàbbal géej ndax luwaa bi loo ci man mënti déggit yàgg na ña ngi ko def ay ati ati ati at suñuy maamaati maam ca gannaaw te maître naan leen dama bëgg ngeen wax ma jamono ji ku ngeen gis rek luwaa boobee daal di dal ci kawam ñu tëjee ko ko maître naan leen amul ndax luwaa baa yàgg ñu lu xartee ko foo xam ne sori na wala coow li coow li mooy bëggoon jàpp Ousmane Sonko fayal laaxu tribune yéene kaay naan maître yoon du dee da ngeen bëgg jàpp Ousmane Sonko lops ne ko ma ne la ay médiation ña ngi koy ruumandaa tribune naan maître du dundooy wax na nee na médiation kay jaru ko délit de corruption nañ ko génnee ci réew mi wala it ñu gracier Ousmane Sonko ndax fi mbir yi toll donte nag procédure bi ma ne la jeexagul moom Ousmane Sonko mënees na ko gracier l'enquête yéen kaay naan kon bu dee bu suite boti de moom jeex ma tàkk moom Ousmane Sonko ba démb la amoon ngir def boppam prisonnier mën na nag defuk appel mbir mi daal di gën a woyof ci moom daal tribune yéen kaay doo xool déglul maître Doudou Ndoye lam lay wax nee na coow li jeexagul saa bu ñu bëggee teggil tuuma Ousmane Sonko nguuru Sénégal mën na ko def l'enquête ko di jee naan kon waaju ñu ko de naa la xamal ne li fi amoon diggante benn fan ñaar ba ñetti fan ci weeru juin fas nañ ko yéene ni saraax ci ndoddug Ousmane Sonko xam nga parquet bi gaaral yàgg wiiri wiiri lépp nag Ousmane Sonko la ko bëgg jor vox yi naan kon waa Pastef ña ngay riposté bureau politique bi naan duñ ko nangu tey duñ ko nangu ëllëg parke bi génnam gee coow li coow li mooy seeyal Pastef la ñu bëgg xam nga bu ñu nee dañoo wiise article 431 tiré 1 loolee nekk ci code pénal soxal na crime yi nga xam ne faatug bakkan yu kan lool lañ koy duppee muy génocide loolay nanu suuxal Pastef seyer ay gaayam te loole nag mën naa yàq dal gi nga xam ne réew mi am na ko waa Pastef di jori xeer parquet baa njiitam libération yéen kaay naan man terewul de ay ñooñu Ousmane Sonko mayu ñu leen dara ci réew mi nan leen di jàppee sax dafa ñaaw réew mi ko di naan man Ousmane Sonko xamoon na ko waxoon na ko président Macky Sall fi mu ne cuq ñu tàkk mu ne nañ ko dàq la bëgg l'évidence las yéene kaay mel ni ku naan kon Bougane Gueye Dany waxoon na ko nee na sàll gëtam yépp mu ko teg ci dàq élection diirub ñaari at ci réew mi l'évidence yéene kaay naan mu réew mi mbaa duñ ko jox Sonko ak Bougane ñu jiite ko ndax loo ci mënti déggit ñaar ñi ñoo mérité dëgg-dëgg askan wi jébbal leen confiance ndax ñooy daw subaak ngoon ne safaak marwa ci jafe-jafe askan wi lu gaa yi tabax ñu daal di daaneel lu ñu wàqit ñu daal di suul fi réew mi tollu day jafe askan wi ñoo ko daal di poñe fépp foo xam ni jafe askan wi war fa nekk wax fa ñoom ñaar ñoo koy kaas ñoo ñoo koy dox ñoo koy wax ñooy lu xati mbóot yi nga xam ne làqu woon na di génnee dëggantaan jafe-jafey askan wi ba jaloog politique bi nga xam ne gars yi dem nañ ca wuy ji ñoom ñaar ñoo ni woon dialogue dil la ku ca dem sàll ngaari lam tooro buur géde ngay liggéeyal direct news naan man dialogue boobee day jural na xalifa babacar sàll jaxan na ma ci réew mi moom xaaf nag yeewi askan waa ngi koy bëmëx naan ko xalifa demal abal nu sunug yeewi yéeni kaay bi naan maan njuumali leen ko jàppee ci biir yeewi askan wi l'indépendant yéeni kaay naan maan moo ne xamoo ni bart ak xaaf ña ngay doxal Barthélemy Dias fal nan ko ci poste boo xam ne àdduna wërngal këpp daanaka nit yu ñuul yi ko am bariwul direct news naan man waaye yeewi askan wi moom bëggatuñ leen looloo leer fo yéene kaay naan man yeewi ña ngi ca geneen xeex mooy jël président Macky Sall jagat jagateeg moom daal di wili pande mbootaayu xeet yi ci ñaawteef yi nga xam ne fi mu ne réewum Sénégal ñu koy dund te nee nañu kenn teguñu ko kudul Sall ngaari lam tooro buur gédee vox populi naan man ba ca bitim réew de ña ngay wili pande Sall ngaari lam buur gédee beneen député bu France Arnaud Legal ma nga yàq yaxeet ak président Macky Sall dem ba ca kanamu parlement bu France naan France leeral leen seen position ca la nga xam ne moom moo di ñaawte fi autorité yi teg réew réewum Sénégal xam nga ay élection présidentielle ma ngay jub ci sa Sénégal ñu am fa président boo xam ne képp koo xam ne adversaire am nga mu jàpp na yow mii mën ngaa fuqartee nguur gi ci yow sàllang lay fexeel di la tegal ay ndëgg sërëx di la ca suuxal loole jur fitna ci réew mi ñuy jël askan wi di leen faat ci anam wu mitti te ñaaw lool Arnaud Le Gall naan moo France doo wax waxuñu nga dugal sa loxo wax ni Sénégal di doxee waaye faatu bakkan ya métti ca réew ma xanaa am nga ca kàddu le quotidien le quotidien naan man yàq nañu ukadde waaye xel na dal ndax lépp loo xam ne archive la ma nga woon ca ordinateur ya le soleil yéene kaay naan kon waxtu woow moom président Macky Sall ma ngay régler ji jafe-jafe yi nga xam ne am na diggante Ukraine ak Russie bokk na ci juróom ñaar njiit ya nga xam ne yebal nañ leen ngir ñu amal médiation bi nga xam ne Afrique moo ko yónnee tribune yéene kaay mel ni ku naan kon sikundiig sikundiig say dëkk ngay bax di jëx jëx yi nga ni da ngay régler ji yeneen i jafe xam nga Sénégal li fi nekk ci problème rew na ca ak jara senegal nit ñi tiit nañu Sénégal nit ñi xiif nañu Sénégal nit ñi mar nañu Sénégal jàmm ak dal gi ñuy wootee la ñu gisul ci réew mi ndax réew maa ngi mel ni ku tëb dal ci xal mu dese la gëneenuk tëb ñu ne déeta waaye ñuy jub tabaski goo xam ne ko ni indil sa xar ndakaaru mu ne la maa demul maa lànk lu nag ñu koy wan xar yoo xam ne diggante ñeen fukki junne ñaari million la ku koy jënd waxtu woowee turbine yéen kaay naan maan pomme de terre ba nga xam ne mooy wéttali soos yokku lool jóge ci junne ñaari téeméer yegg ci ñaari junne ak ñeenti téeméer yéene kaay bi naan maan soble ma koy wéttali moom it gën a cher wala ñu ne déeta waaye sàll ngay lebi bitim réew ngir indi ñuux ci réew mi réew moo xam ne dafa ndóol ba jéggi dayoo ñuy leb di ci ronkos ronkos googee féetewul réew mi fenn ñu ko it fenn saa bu ñu xëyee di gën a ndóol réew mi di gën a dellu gannaaw ñuy gën a ñàkk tër bi naan maan moo taxit bugaan gay dani tàyyiwul sol na dàllam dem ci kër kilifa diine yi démboo njaay ma nga woon ci kër xalif général des Layènes ak porte dépendé président ki Sall janoog ma Matar laay moom Bougane Gueye Dany ne ko askanu Sénégal laa fi teewal dama bëgg ñëw yow Mamadou Lamine laay xamal la ni président Macky sàll yàq na réewum Sénégal yàq na jikko yi yàq na gëm-gëm yi Sall ngaari lam tooro ma ngay faat suñuy doom ci loo xam ne ab complo la te politique moo ko lal naan xalif général des Layènes ak porte parole ba Sénégal metti na askan wi sonn na daanaka faatoo leen dese ci seen biir réew lañ leen xojee ba maar day taali sañ-sañu wax sañ-sañu dem ak dikk sañ-sañu yebbi sax xalaat sax amatoo ko ñu mel ni nag ñu nekk kaso ci réewum Sénégal yéene kaay bi naan man gannaaw Touba Njaasaan ak na ak njabootuk Omar Yène bi moom Bougane Gueye Dany nee na saraax ca yen wa ngir kalaame ji président Macky Sall ci àq ak yelleef yi nga xam ne tënk na ko ci réewum Sénégal yor yor naan kon Serigne Saliou Gueye ñaar fukki fan ak ñeent ci tey mi ngi ci kaso ba maître Ciré Clédor li naan kon dañ ñoo tënk ba tënk awokaay yi ci réew mi Walf Quotidien naan kon waaye lu nu nëbb ci réew mi rek presse ba ca bitim réew ma ngi koy wane Ibrahima Bakhoum ci source a naan ko déet presse ba ca bitim réew moom neex neexal rek ña ko moom ay privé la ñu nekkit ñoo xam ne ay business businessman lañ njortu nañu ne nguuru président Macky Sall ma nga ca nërmeelu ñu bëgg jàpp ca nërmeelu googee tax ñuy neexal ngir keneen ku fi toog mën leen joxi marché Ibrahima Bakhoum naan leen mbir mi wax dëgg la lu ko de tribune yéen kaay naan kon bu mu metti ba ngeen fàtte ni Sidiya Ndiaye làqu na Le Soleil yéen kaay naan koo xam ne dundam gépp xeexal liggéeykat moo ko tax a jóg liggéeykat yi daal di ñàkk koo xam ne dëgg-dëgg moo doon seen mbër ci digg làmb ji laas yéen kaay naan kon waxtu woowu am na ñoo xam ne day xalaatuñ dee xoolal